يضحك يوم لا ترى الناس إلا بين باك وضحك الليل وتحوى الدخولي انستلو لولي فيني جنتي سمي عبارتما واو نين رك نيو عند نيوم ديسان نيوم نين نيوغا بيت ملاكا يانغي لين داند واو دي لين واخ سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين والله نيسان واي غور غوت ديغ نك جيتو والله نيسان يوننتي بي صلى الله عليه وسلم ني جوخكو لواء الحمد متى بو تشولي باريت بيس نغي نيو ñepp xamni doomu romu gañi dafa toog bis ci néegam am ñu ko bëgg a tooñ dem di ko gaaral ci fenêtre kenn ki daal di yëngal bopp bi ne ah, ah waaye Ibrahim Xalilullah keneen ki jékki-jékki daal di ni ko wa Muusa kalimullah keneen ki ni waa Aadam istafaahu llah mu nga ci néeg bi di dégg de daa di jékki rek ubbi fenêtre bi ni tey ma tey ma jëndal leen guru ndax ñi ngeen fi tudd ñoom rekk la am gis nga kilifa gu baax dangay def dara pour naqaral ko fekk yëgu ndax la mu am a tax mo génn ni leen foog ma jëndal leen goro ndax ñoom rek la am ibrahim xalilullah wala fax am na ko te tiitaruwul fexe na ba nekk xaritu yàlla ndax yonent bi dañ ko ni xaritu yàlla ak soppe yàlla bu ci gën a rëy ni soppe dañ koy tudd mais yàlla amul soppe parce que du soppu nit jikko yu baax yi ca nit lay sopp waaye nit nag xarit la ca am ndax la mu dajata dana tax ibrahim xalilullah fexe na ba nekk xaritu yàlla waaye nag wala faxra du ko tiitaru wa musa kalimullah Moussa it am na ndax ku am ci sa borom mu wax ak yow nga dégg am nga ndam waaye nag walla fax du ko tiitaru wa Isa ruuxullahi wa kalimatuhu Isa it am na ndam ndax ku amul bàyyi sa ndey sell yàlla nangu sell ga ba nga juddu ca te amoo bàyyi doy na teraanga waaye nag wala fax du ko tiitaru وآدم اصطفاه الله ما يبايو عبد النبي كن مؤمن أمنا نم ويت ولا فخر دوك تيترو ألا وأنا حبيب الله ولا فخر وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر وأنا أول من يحرك حلق الجنه فيفتح الله لي ويدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر وأنا أول شافع ومشفع هناك ولا فخر وأنا أو أكرم الأولين والآخرين ثم لا فخر ولا فخر الأيدي سالك الأيدي سالك nee ñi ngeen fi tudd ñëpp ak seen may bu ma ci nanguwul amul waaye nag yàlla bu doon am xol ma ni maa nga ca biir waaye duma ko tiitaru mu ni ëllëg ñi yàlla am ñëpp bu ñu teewee ba yàlla def mbiram yëpp ba mu sotti danañ ma indil liwaaul hamd parce que xam nga yonent bi bu dul woon yàlla mi ko bind mayal ko boppam yàlla fiire ko parce que yi daje ci moom xajul ci nit que kuy dund ci àdduna bi te yàlla yëg téele yëg ni yiw adopté na la yiw loolu tax ñu tudde ko Muhammad dañu wax ni siixatu takraar la mooy koo xam ni lu mu def jar na cant تي دودوك الى يوم القيامه بيس بوني موي ديف لو جار جات موتاخ لي نكوي ديكوري الك موي اندي لواء الحمد جوخ كوكو واخين لا بيس بوني bañ koy tegal ci kawam ak couronne ba muy àndal ña ca des ñépp nga fa waaye booba baa nga gis photographe yeeg caméraman yeeg rey rey ji mel ni maroot yi tali yonent bi nee na keroog gi dana xew waaw ñu indi ñu ràng ma ko nee may daagu fuqaraul muminina yëpp topp sama gannaaw di tàggoog man ah. te la ca neex nag nit ña xamuñu ko waaw nee na ma séen xaju yonent yàlla noox ba muy daw di yëngal genn bi di jiitu fële nee na ma xool fële séen jaani Muusaa ja momit muy yekati bopp bi leeg mu def ni lele mu tegat ko daw tuti gestu ma tuti dana ko gis nena ma na ma ko gis mbamu yonent yàlla isa ba waaw musaf ye musaf yep pour décor ba ca janna nena ma xol sama nàqatu ba ma nga yekati bopp ba rek di bandi xitwal janna ak weexaay ba waaw na may daal ko ñuy daal ko ba ma yegg si uxarriku xilaqal janna waaw ma yëngal la ñoo fëgge bunt ba xilaq mooy genre ano yooyu ngeen di gis ñu di ko def ci bunt yi di ko fëggee waxin la waaw fa yaftaxillahu lii yàlla jox instruction bi ñu bës bunt bi ñu bës bouton bi gis muy commencé ubbeeku waaw nga xool ñëpp rang malaaka yi rang rouge bi ci digg bi waxin la ah. yonent yëpp taxaw ci bunt bi di ko xaar parce que kenn du dugg te ñëwul c'est lui patron ah. na mu amee woon ca Israa ba ah. mu amé won te isra lolo tax ñi werante ci as salatu al wusta ñi nan takusan moy salatu al wusta ñi ni timis du takusan timis la hadi bi ببكرتها هذه بحرتها هذه بحمرتها هذه بوسطاها هذه بظلمتها اذ يسكنون لها akrim bi dulmatiha akrim bi sukna parce que ñi jàpp ni tàkkusaan mooy salaatul wusta dañu commencé ci suba te julli yi julli subaa ci mujj julli yi subaa ci mujj julli tisbaar moo njëkk moo tax salaatu duhur awwal man dahar

looloo tax Jabraïl tag waaw dellu tag ca premier étage bi te mooy asama al awwal mu dem toog fa pour xaar tisbaar jot ndax moo ko waroon jàngal ni ñoo jullee bi tisbaar jotee mu wàcc si ñu yeneen ci bi taxaw mu taxaw ci gannaaw mu wan ko nu ñuy jullee tisbaar ba mu jeex ñu ko maîtriser nga yëpp mu ni ko mu dellu toog di xaar takkusaan jot takkusaan jot mu dellu si doy bu ñëw comme nit walaw la malakan sax la jaalnaahu rajulan parce que bu ñuy ñëw ñoom dañuy jóge ci seen aalam foog bu ñuy ñëw fii foog ñu jaar ci aalamul misaal moo tax fa arsalna ilayha ruuxana fa tamassala فتمثل لها بشرا سويا تمثل يعني من عالم المثال كان نكون بو نيو ذات اصليه دونك فاي باي باسكو خاجو في ci alamul misaal lañ lay incorporer beneen corps pour nga mën a adapté wu ak réalité bi fii tax walaw jaalnaahu malakan sax la jaalnaahu rajulan mu jàngal ko bu ni ñoo jullee tàkkusaan waaw timis jot mu ñëw ni ko nag nga bàyyi ci xel loo tax muy ñett loo tax muy ñetti rak mu ne ko lu tax mu ne ko ñaari rak yi daf ko séddi julli yaam ñeenti rak benn rak bi ci tegu moom la séddee suba mais am ñaari rak looloo tax mu nekk as-salaat al-wusta lay tax ci la changement yi di am changement Kar perkar, कार ñi yendu bëccëg bi ci timis gi la xaar ñi julli timis bu ñu julle ba nopi rek ñu bo bagage yi bu registre fekk karu guti bi ñew. jëm fajar Ara tax fajar gi doy waar lo tax mu wal fajar ndax tay gi fofu ni malaki yi yoxo sok registre tek gi aduna nan tek yàlla di dig batmawu kër yi di mel montre bu def tik tak tik tak tik tak di yek sàbbal gi ngi koy sàbbal motax fa subhanallah hina tumsun wa xiina tusbixuun wa ashiyan wa billeyli wa xiina tadharuun juróomi waxtu yëpp dugg si voilà waaw waaw waaw parce que euh, dafa dañ ko bind ci journaux yi jamono yi mu indi coow waaw am ñu seetlu ni booba ba tey waxtu yëpp danañu changer seen heure fii ba mu des waxtu tisbaar waxtu tisbaar booba ba tey waxtu bi ñu ko daan julli ba léegi du changé moom lañ koy tu ñu gis ni ndekete tubaab yee ko ordonné woon ah, ah, ñoo waxoon ni euh, heure yi ñu def seen sieste lu ñu bëgg ko leen tànqal moo ñoo fixé woon deux heures et quart tu heures dix deux heures et quart waaw ah, ba kenn kenn wax la rek ni la nag isaan a demee ba sa diine am koo xam ni moo naan la lii ngay def ak laa dootul sañ a wax waaw aha wax na dëgg waaw ñoom xam nañu lu xew parce que ñoom du ajuwuñu ci sunu montre yi am na yeneen heure yu ñuy jànge te mooy as-saatul falakiyya nit ñi xamuñu ko les horaires cosmiques moo gën a wér te ci la leen yégal ni lu yàlla bind rek yaa ngi koy defandoog ñoom wa in min cheyin illa yusabbihu bihamdihi te woowa waxtu saatul falakiya Maodo bind na ko programme baa ngi fi xanaa bu ngeen jógee ngeen def ci yitte génne ko am naa am naa yëpp niñ ko bindee ci saison yi yëpp yëpp danaa leen ko jox ay mag ci def travail ma am lu ma ca séq ñoom ba ñu pare yépp gi ma yor ñu jógee ñu jox leen ko ca seen yu nayroodi بلع تيدل وسعد زيا لياليك والحرث كز دعلخ بيا فبرائرح حوت يبن قد يهي ربيع أخر مع حسوم في كهي آه. سين يدوي واريو آه. yooyu yëpp wax la yëpp nag ni muy deme ci as saat wallaahi ndeysaan looloo tax ba ci góor ak jigéen influence bi mu ciy am jigéen di yàlla tabia bi mu ko jox ak fitraam di attewoo ci dawraan al cycle lunaire gor tabia bi ko yàlla jox ak fitraam muy muy attewoo ci dawraan shams te mooy cycle solaire mais lu tax lu tax du ñu bokk yëg-yëg moo tax jarul xëccu ku ne la la yàlla jox jël ko inna saayakum la shatta yooyu dina ñëw ci beneen cours ndax xaju fi wax naa leen démb ne leen roo xamul nit yaram la xam bu ñu amee jot peut jaay laylatul qadr ak yooyu peut-être parce am yoo xam ne rek connaissance bi rek nga cay am pour bëgg ay la ca aju sax daf lay tardeel ay yëfu jàmbur waaw bu defee kon nag rek am na koo xam ni gëm ko nangul ko doy na aljanna ndax Cheikh El Hadj wana am fayda gu day ni nii ñu yàlla dig ëllëg aljanna yëpp bu ñu amee ngor nañ ko tàmbali fii nañ ko tàmbali fii te nee na bu jëpp doole mu di wa nazana ma fi sudurihim min xillin ixwaana na lay tax aljanna di neex ëllëg mooy kenn ku ne dootu yëg lu ñox ñoxi ci sa xol pour sa morom kune sa xol dana yaatu pour ñangaam dootoo am en dootoo am rancune ken dootu la def lu لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما كن دوتو فدك جاخر كن دوتو فدف نيت لومي توك دي خالات يالا ني يو ييب ام نفا ماود نك ني بوين كو خارال لك نانيو ام غور بو داي كو في نا بو في دال جنه فريد يال جنة أها أتعنا تبارك الله بنجل تون كليفي رك نيو يامل فوفو وحتان دي نيان رك يالنا يالا دوغل نيو شي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي نيو عندكوك أمة محمد يب صلى الله عليه وسلم ak ku yàlla yéene ci yeneen umam ya ca tax des kooku moo ko moomal boppam